ñu di nuyu kenn ku ci nekk sa tur sa sant di nuyu ki nga xam ni mooy Pape Abdou Fall mi taxawal bés bi di ko ci ñaanal moo am ci ndam di rek benn appel saison bi door na combat yaa ngi am waaye fa tubaab fa kàll combat bi bokk na ci yaakaar yi nga xam ni mën na tax làmb gën a suqaliku kon na ci ñëpp jàpp ñëpp ànd ci liggéey di nuyu ñëpp ñuy jël nuyoo bi di ko teg ci loxo koo xam ni suñu kilifa la ne jotaay bi. olof yi dañuy faral di wax ni sa naaru góor soo bëggee mu naat doo ko dégg sa xarit waaye doo koy dégg xaritu naaru góor lambit suñu bëggee mu naat nun ko dégg koo xam ni kàddu nooram dina méngoo jëfu nawetam kon le président Bassirou Ba suma nijaay maa ngi lay nuyu di jox sa cër ak sa wàccuwaay mbokk yi bu noonu weesoo may ndokkeel ñaari champion nga xam ni ñoo war a daje muy Siteu muy Papa Sow ñoom ñaar kenn mosu ca yàq làmb papa ginnaaw bala joxe li waral tey Fass ñu jëlee la fa bokk na sa féete ak mbëru Parcelles olof yi dañuy wax ni ragal féete rek xañe wërsëg ñu bëggoon xam contact bi yi nga xam ne yaa ngi koy pare combat bi ndax yaa ngi ciy liggéey ak mbëru Parcelles yi for nañ ci wewu nag it Papa dafa war a taxawal lu bees muy écrire ñu bëggoon xam loolu ndax am na ak bu fekkee ni pare na ak féeg combat bi di ñëw le avril ndax it bëgg a defar say këy bëgg a am sax ñu liggéeyal du nekk loo xam ne pression la si ñu lay jox sa cërëb sa wàccuwaay di di wax ni Siteu mbër mu mag la mbër moo xam ne fi mu yegg ci làmb jomam ak jàmbaaram moo ko fa indi waaye Siteu fi mu na tey muy Lansar mu bokk ci champion yi nga xam ni ñooy yaakaaru équipe ba ne ci loxol suñu ndijaay Max Mbargane moo am loolu expérience làmb ñu gis Siteu ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès gis Siteu kombaam ak ki nga xamante ni mooy Gouye Gui jom gi ñëw na jàmbaar gi ñëw na fit ba ñëw na ak bëre ba waaye ci njeexital ga làmb daan ak daanu la ñu bëgg a xam ci loolu ban expérience bi ciy tiré par rapport ak sa combat ki nga xam ne mooy Papa Sow ak ci fan lañ la ci mën a xaar mbokk yi ñoom jéggul ngeen ma merci euh, papa li ñu kàddu yu rafet na d' euh, papa nga tontu ci laaju papa waaw merci papa Aline man bref dama dàq ci ànd ak parcelle xanaa am ñoo xam ne dana war a yóbbu monument jël ay pôles jël essence dugal ci taal xanaa man booy ma dàq si ànd ak waa parcelle ndax man kenn xam naa fu may yem kenn bu ne te ànduma ak ñoom jiit koom dama ànd ak ñoom jiit cër respect mais ñi nga xamante ne xaalis moo tax ñuy ànd ak mbër xanaa boobaa ñoom dinañ yóbbu monument place de l'Obélisque jënd essence jël ay pôles dugal leen ci taal Huh? No, kom niet. Kalau ni, benar yang ya? malah anu, anu, anu, dalam ay ay xati xaat ni leen ci la de man andu ma andu wa pass dama andu ak ñoom andu mag ak rak wax naa ko abbas doy kérok ci réunion bi ma ne ko président mu ne ma waaw ma ne ko aada pass am combat ñëw sa kër ne la père jàppale ma nooy def mu ne ko dinaa ko jàppale su ma amee suma xalaat ma dooli la daal may ni mu dalee Abbas Ndoye dal keneen noonu la ma dalee dama nekk ci kër bërëb boo xamante ne nii dañ ma fay jiital bokk ma fa kenn écrit ma cee jiital te cër yàllaa koy joxe xale yi bu la euh, juboo dama si rejeté kenn ku ne dama lay téye ma ko def ma ngir dara te yàlla rek tax samay raq dañ bu si ma la conseil dama lay conseil lu am leneen lu ma ci def mais utuma ci dërëm ñu ci dërëm na leen war loolu leen war a loolu leen war a prier merci beaucoup ñu jàng ci euh, Siteu mu ne bëri nga ak euh, Sa Thiès bëri ak Gouye Gui euh, ban expérience nga tiré ci ñaari defet yooyu pour mën ci maanaam am profit sa diggante ak Papa ban jàngat nga def ci ñaari defet yooyu. waaw li ma ci wax mooy. jaawaale ci expérience bu bëri euh, yokku na ma tamit lu bëri ci làmb tax na tamit ma xam lu bëri mais nag man nekk na mbir yoo xam ne dama ñëw si làmb ñu daal ma man dama jógee si combat bi Sa Thiès am ci defet tax dama manqué expérience ma jógee sama combat si beneen combat ci làmb victoire man ak Zoss sama combat man ak góor yi ñu bëri di si bàyyi xel tey li ñu naan naan moo wax làmb dafa am crise comme man xanaa suma problème ko làmb day dee ndax làmb daal bu ñu fàtte sama bopp quatre heures lañ toj sama bopp quatre heures lañ toj sama bopp lañ toj sama bopp dama sacrifié ma taxawal pour suba làmb pour làmb am taxawal pour làmb am njëriñ dem bëree te bëree bi lépp moo ko def mais ndox yoruma ko ndox ñiir mais lépp amoon doo fi gën a war a doon te pourtant il faut nekkoon nekk ay xaroon xam ne sama bopp dafa toj ñoo xam ne doon nekk woon seen sax xam ne seen bopp dafa toj par rapport ak dañoo ko doon combat bi te ñu bari xam ne seen bopp dafa toj mais kenn ñëw kenn mën na bëri mais dama sëbal leen loolu dama sëbal leen ko maa ngi jël mu def lépp moo bëre maa ngi seet ci man ndam dama lay jeexee kon am na ci wax bu mu sant si yàlla félicité ki ma daanoon